a été interpellé directement rapidement comme ça ñeneen ñu commencé mos. Abdoulaye yaakaar naa ni nit moom buy wax lu yanu maanaa di wax dëgg soxlawul di mbelli mbelli bay tëb. seen soxlawu ko soxlawu ko. seen fen nit bu mantee gros moo tax ma ko yuuxu seen fen moo rëy. Birima tu la laisses parler. waaw da ko fenam yi moo rëy moo tax. non dama ci ay mbiram. waaw xam nga wax na sànq ni. Euh, Adji Sarr daf ne bàyyam a ko violé maanaam Ousmane Sonko mat na ko bàyyi. oui. waaw baax na ne doomam sax moo mag Adji waaw mais am na ñoo xam ne am na sa âge. oui. di dugg ñu tolloog aj u ci ay hôtel ak di dem Dubaï. oui donc loolu du wax. Ah. gis nga réew mi. Hmm. xamante nañu. nañ ànd ak dal rek. dafa am solo. bañ a dugg ci mbiru mërs yooyu di ci xóot ndax liñ fi xam bari na nag. waaye da ngeen jàpp ne ay ndaw lañ. Eh, léegi nag ku doxaan ku doxaan yaa xam yaa yàlla même da nga koy tontu eh d'accord lañ dama ne bañu ko dox ku doxaan yaag sa yàlla la terewuñu ko kenn li ñuy tere mooy kuy yàqtaan ku siif man su ma neexee am jël sa mangage bu doon ñaari mag yi ci biirum nekk jël seen hôtel def lañ bëgg a def kenn ki film rom bi sax ka ko filmé mooy traite hmm. ñu on parle de cible bi. on a pas parlé que ñoom c'est bon c'est bon Birima. c'est bon cible bi sax ay xale ndaw. ne vous bismillah léegi nag euh, xam nga dafa am yu am solo yu ñuy wax. ndax dañ ne aji Sarr le 2. Hmm. la bind plainte. Hmm. le 2 maanaam ci la viol bi am liñ ko waxee. Hmm. témoin ñi fa nekk ñëpp ne 23h la génn ci kër gi plainte bi ñu ngi ko daté le 2 moom 23h la génn ci kër gi ñëpp d'accord nañ ne doom ci benn responsable Benno Bokk Yaakaar di Sidi Ahmed mbay di doom ci Maodo Malick Mbaye buñ ne Sénégal nag buñ ne doom non Sénégal buñ ne doom non neveu cousin fii lañ koy waxee mais ñun kaw ga au début j'ai été précis dans ce que Ousmane Sonko a da ngay la Abdoulaye hmm. Der. man Kogo laa jóge man ca Gottab Jolof ba laa hmm. jóge. sama sama rakk su amee doom doomam sama doom la. Hmm. loolu lañ xam. oui c'est vrai. yaa ngi comprendre donc di doom moo tax ma ne la di doom ci Maodo Malick Mbaye. je suis d'accord ñëpp ne moo jël si xale bi. fi xale bi déclaré ne parce nag PV yi e day am solo te dinaa ci jaar tontuwaale euh, sama. sama sama sama sama bàjjan bi toog. Mm-hmm. ndax daf ne bi euh, section recherche dafay enquête am ba pare. Mm-hmm. daal di jox procureur joxu ko section recherche terminé wul enquête dañ ko dessaisir parce que gis nga PV yi PV yi génn dafa leer te ci document ñoom bi nga xam ne jot nañ ko assemblée nationale PV bi. leen fa wax ak certificat médical bi moo ci nekk ñoom seen aqulaa taala war nañ xool certificat médical boobu nga xam ne dafa wax bu biir leer ne ndaw si ñàkk na ndawam bu yàgg benn ñaar ndaw si amul benn yoon euh, euh, maanaam ci fukki waxtoog benn yu néew néew yi passé defu ci lu niroog rapport sexuel mm. déglu rek xaaral mm. xaaral xaaral xaaral mm. rek c'est faux c'est faux dama ne certificat médical boobu noonu. ci la ñu basé wu mais dafa am leen lu am solo. c'est faux mooy 22 heures. c'est faux yow da nga ne dañ laa violé la 2. Hmm. nga ne da ëmb. nga ne Jakarta moo lay jël si. dafa ëmb. non moom bi muy génn kër gi loolu la tàggoo. Hmm. témoins yi dañoo wax mu leer. mooy jëkkëru borom salon bi. Hmm. ak beneen masseuse bi. ñu ne euh, Ndeye Khady Ndiaye yóbbaale na sax test grossesse bi. biñ ko biñ ko woowee. Hmm. mu ne mu ne Jakarta koy jël si. Hmm. ñu yeeru ko gis ni 4-4 ko jël si. da ki ko jël si nangu na ne moo ko jël si. wax na ne benn médecin ak benn avocat xarit avocat ñoom ñoo ko permettre mu daw ci heure couvre-feu bi. waa léegi yow boo génnee 23h ñu jël si la. nga bind sa plainte boo xam ne ci ordinateur nga ko bindee. lépp maanaam avant minuit. jël jël si nañ la ci bind nga ci sa plainte tiré nga ko lépp ci avant minuit ci ci ci une heure de temps ban kër la ko defee ban kër lañ ko yóbbu fan la tàppee yëf yi loolu yëpp mën nañ ko xool suñu génnee ordinateur bi mu dem xëy le 3 dem déposer euh, plainte mais bi ñu ko interroger xanaa lu mu bon bon yàlla témoin témoins yi lan lañ wax témoins yi yëpp dañoo disculpé ko maanaam ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon nekkoo fa woon nekkuma fa woon mooy jëkkër ji ak beneen masseuse bi moom ñu gis ne joxe na plusieurs versions ci bi ñu ko dégloo waaye léegi la moo tax enquête section recherche bàyyi wuñ ko mu continuer enquête bi ni mu wooyee Sidi Ahmed Mbaye mu woo euh, euh, euh, médecin bi bi ñu ci tudd woo avocat bi su boobaa loolu dina leer. mais yooyu yëpp defuñu ko may ma rek après ñeneen ñi ñam ma doog a mën a ñëw ci yow. escamoté ko. Hmm. daal di jël dossier bi yóbbu te fii xam nga dafa wax sànq xam nga xam nga dafa wax sànq que ni mm-hmm. euh, euh, ci ci ci dossier yi mel noonu juge d'instruction da koy jël mais Euh, trafic de drogue nekkul nekkul lu ñu criminaliser. Mm. et pourtant dañuy bàyyi gendarmerie mu def enquête am mm. euh, le temps qu'il faut. encore une fois moo tax ma ne la. je suis désolé sëñ bi waxal ñu lu mën a nekk. gendarme mu toll continué. non non birima birima birima birima birima birima birima birima birima birima birima non non oui ma non non non non non. birima birima birima kuloon kuloon. kuloon voilà jeex na. Ah c'est réglé. continue allez. ganale bi jeex mais wax yi moo moo moo ganale bi jeex na c'est bon c'est tellement ABC man doo ma may doo ma may non non non du la may dara du ko may télévision yi ma débat maak moom nga xam ne day am temps pour dinañ leen tëggal débat boobu allez c'est bon tu termines Pape Djibril yow yaay jël naa engagement non di nga di nga jotaat yéen ñëpp di ngeen jotaat damay débat damay débat koo xamante ne nii askan wi dinañ ci jëlee njëriñ man dama ñëw fii pour wax ak askan bi. da ngaa war a war a jiite réew da nga war a jiite bu ma xeeb bu ma. d'accord naa ne yaa ma xeebu ma la réew bu dee nga xam ne mat nga ko. Charles je suis désolé. débat bi du man ak sa bopp li ma bëgg wax. non dama ne dafa am solo. déedéet yaa sénégalais yi sëñ bi. da ngaa a wax ma déggaat li ma bëgg a wax dafa am solo. yéen ñaan ñëpp voilà yéen ñaan ñëpp vous n'avez plus la parole Charles bismillah je reviendrai quand ce sera plus euh, Charles bismillah dans Abdoulaye bëggoon naa rek préciser la benn affaire oui pour terminer vraiment il a parlé il a il a parlé pendant vingt minutes doo ma dégg mais xam nañ moom li koy indi ci plateau te du maak moom encore une fois. tu l'as précisé y' a pas de du maak moom moo xeeblu boppam man du maak moom. s'il te plaît dégg na Birima Birima s'il te plaît. man man maak yow la. man maa la défier. parce que fii du kenn sene. s'il te plaît c'est bon. man euh, di nga may ma ma nuyoo koo xamante ne suma suma frère la Ndiaga Ndour maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yoo xam nga xam naa c'est important. Euh, di nuyu koo xamante ne tey j'ai une pensée particulière pour lui muy son la Lamine Diack ça fait quand même cinq ans nu ngi koy téye France. di laaj rek ni ñi est-ce que dañuy xaar ñu indi son pape si kees quoi. man je pose la question est-ce que ñun dañuy xaar ñu indi ko si kees ñu yóbbu rob sam papa la ñeme naa wax loolu waaw nag yenn saa yi nag ñàkk fayda mënul passé loolu sam papa la nañ ko dem uti indi ko bu ñibbi si quoi parce que Blatter échelle bi Platini échelle bi et tout y a des yoo xamante ne nag dëgg da koy wax ñu jégal ma si si kaddu googu di naan sénégalais yi ñu dal déer musuma xalaat xalaatuma ma toog euh, ñun ñëpp ay ay góoru yàlla lañu mais xalaatuma suma àdduna naa toog di wax wax bii quoi si kilifa toll na Sonko wala n'importe qui d'autre parce que bu ñu waree xool de jardin secret de ku ne di leen fi gisul ne mbóot yëpp mais dafa am rek loo xamante ne man dafa ma jaaxal kon tey sénégalais boo xamante ne bu ñu la jiiñee ñu jàppale sax nga am présomption d'innocence bu la neexee ne justice demuma donc tous les sénégalais sont en droit demain de dire man du ma wooyu du ma uyu si police du ma uyu si gendarmerie du ma uyu si justice parce que j'en ai le droit amul benn nous sommes tous d'égale dignité au Sénégal tiit naa si loolu 1962 dañ jël du jaay yóbbu ko dans l'histoire du Sénégal c'est la première fois ñu àgg si niveau de rupture de confiance xëy na am na loo xamante ne indi na ko si biir Sénégal ga am na fi lu ñu fi gis nii défiance musuñu gis situation bu toll nii ba nga xamante ne l'Assemblée nationale est balayée Sonko daf sa bokk quand même ça veut dire quoi nga bokk sa mais ban rapport nga am ak Assemblée nationale pour que tu l'écrases autant moi ndaw bul seetaan la beneen affaire la gendarmerie fii lañ wax sànq ma ne leen keroog est-ce que vous considérez notre gendarmerie assez nulle pour ne pas savoir que la convocation d'un député, député, ne le lie pas forcément avec les lois coercitives. Parce que c'est dans le cadre d'une arrestation que l'humilité Mais la convocation, elle est là. Maintenant, le député est libre d'aller ou de ne pas aller. am lu ñu wax si suñu gendarmerie man mënu ma toog di di wax loolu mënuma toog di dëgg yenn yi j'ai dans ma chronique d'aujourd'hui j'ai parlé de de Phédon Phédon mooy koo xamante ne borom xam-xam bu tudd Platon moo ko bindoon. jàngum terminal nga fi indiwaat de. xëy na waaw dama dama dellu si dama réer parce que dama réer. <laughs> xëy na moo ñu gën a <laughs> mujjee waaw xam naa yaa ma si gën a mën yaa ma gën a mën si loolu. <laughs> ma dellu si loolu. ba Socrate ju jàpp ko ne ko daal condamné à mort ñu ñëw fekk si ko. Criton ne ko saawaay am na gaal bu fi dee mun nga daw quoi. Socrate ne déet. loi yoo xamante ne ñoo may ba seego sax anduma ñoom mooy mooy loi yoo xamante ne ñoo may mm-hmm. régir toog toog toog dafa am niveau boo xamante ne la moralité assez stricte dafa am fu mu lay woo tout ça je n'ai loolu yëpp gisuma ko moi je suis pas un juge man duma avocat je suis un sénégalais KO debout boo xamante ne qui a très mal te defe naa sénégalais yëpp yëpp nga bokk si Sonko ba a bokk si Sonko tous les sénégalais ont mal parce que affaire bi dafa c'est-à-dire dafa kéemaane quoi ñu ngi toog fi di wax lu ne on ne pense pas à la fille Adji Sarr mais Birima am na lu mu fi wax il ne m'appartient pas à moi du du l'honorable du yow Malick du kenn fii dafa am foo xamante ne fa lañ war a daje pour que mbir bi leer am na wala amul moi j'ai une sympathie parce que je considère que Sonko est, une, est, une, est, est précieux pour la démocratie sénégalaise. dafa am loo xamante ne nag je l'ai dit ici et j'en veux terriblement aux proches de Sonko parce que Sonko on le protège du ma fi dekk fii di fi nekk ay objecteur de conscience j'en ai pas le droit je suis un homme comme tout le monde jamais je ferai la leçon de à Sonko mais par contre on le protège dafa am loo xamante ne on parle de complot tu imagines que moi si je fais un complot contre Sonko euh, je fais un complot nga foog ne que c'est pas sur place laa koy dem te wala xale yi gën a toog di yuuxu nañu nañu xoolante affaire bi ça veut dire que aujourd'hui on ne peut pas dire une chose et son contraire on ne peut pas vouloir une chose et l'écraser on ne peut pas voir la présidence de la République du Sénégal et écraser la première institution incarnée du Sénégal ce n'est pas possible On ne peut pas être un député de l'Assemblée nationale et écraser l'Assemblée nationale comme cela est en train d'être fait. On ne peut pas insulter notre gendarmerie nationale. On ne peut pas insulter des juges. On doit aller répondre. Point final. On ne peut pas appeler les Sénégalais à sortir pour ñu toog di xeex di tuuru nan dem foofu s'il n'a jamais violé cette fille-là eh bien la justice le prouvera et les Sénégalais yoo xamante ne tey c'est à eux dafa am loo xamante ne Guy Marius daf ko wax personne n'a prêté attention dafa ne ba ñaari wax yu am solo il appartient aux épouses de Sonko loolu wax boobu kenn xalaatu ko et il appartient aux Sénégalais de décider est-ce qu'ils portent Sonko dans leur cœur ou pas ça c'est politique c'est autre chose mm. mais on ne peut pas faire ce qui a été fait Mamadou Dia Khalifa Sall Idrissa Seck Cheikh Tidiane Sy la famille Diaz tout c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que quelque chose comme ça se produit C'est la première fois. Est-ce que vous imaginez l'aberration de cette situation Mais qu'est-ce qu'on va faire Demain, la gendarmerie va aller chez son collègue demain. Il va falloir venir avec des caméras. Il va falloir tout montrer. parce que il faut aller au tribunal. C'est l'invitation que je fais à, mon, frère pour qui j'ai très mal. Oui, vous pouvez ne, pas, ne croire, mais j'ai très mal pour cette affaire là et il y a pas un sénégalais boo xamante ne affaire bi mu ngi toog fii te météo ko nous on est en train de raconter mais mais bien sûr que l'alliance mais lan mooy langue politique mais c'est pour pas que politique c'est l'affaire des enfants de cœur ku mun sa morom duma ku jekku sa morom rey loolu mooy politique mais da ngay xam boo fa duggee moi je suis un conseiller en communication je te demande hey man c'est quoi tes c'est quoi tes quoi tes Oui, tu me le dis, parce que je n'ai pas envie d'être de le dindon de, de la classe. On n'a pas protégé notre Sonko. Et Sonko, moi, je n'ai pas perdu mon temps à voir l'avocat, avocat, du juge, de madara. Amna ñu ko bëgg. Ñu ko bëgg ñu ngi souffrir. Ñu ko bëggul tam se sen rak la, sen dom la, sen lepp la. C'est le Sonko, c'est le dernier rempart de la démocratie sénégalaise. Vous imaginez ça Si le sang doit verser pour cette affaire-là, il en portera la responsabilité historique. Ah bon? Oui. Si un, si du sang du Sénégalais doit verser, doit être versé, il en, il en portera, parce que moi, Ça, il en portera la responsabilité historique. Si des juges, comme il a dit, fàtte seen liggéey pour def loo xamante ne bokkatul seen liggéey pour nuire à un Sonko et l'éliminer ils en porteront la responsabilité mmh. historique. Il faut dire les vérités. Mais être là, moi je préfère m'en aller que parler de choses aussi vulgaires qui me font tellement mal. Nga xamantene nga tok ay grand gars ay affaire ou DSK des choses comme ça. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui notre démocratie. Vous pensez que les organisations internationales, les pays partenaires développement, ils vont soutenir un pays dans lequel il n'y a pas de démocratie Même le président Macky Sall, hmm. avec beaucoup d'intérêt, de une clarté ne peut pas vouloir une telle situation quels sont les qui, qui va venir ban dëkk la ñuy investir foo xamante amul fa démocratie le président Macky Sall a besoin de Sonko avec une intelligence politique mais forcément on a besoin de Sonko le Sénégal a besoin de Sonko maintenant on est arrivé dans une affaire d'une extrême vulgarité qui, qui m'empêche moi c'est dommage quoi c'est tout oui moi je vais reprendre le dernier mot de